aywa ñu àddu jëmali si leneen mu jëloon dose bu ëpp si drogue bi si euh, ba ñu doon amal rek ab soirée privée si ab appartement euh, ca almadi bu Dame Amar luweeloon rek Aliya di tubaab ba muy bëgganteel euh, moom moomee nag Habi Thiam sax ñàkk ci bakkanam daal dinañ koy rek denc si sutura ni ki démb si mercredi bi juróom-ñetti fan si weeru avril ca Yoff ba ñu jullee rek tusbaar ba noppi bu ñu sukkandikoo nag ba tey si di bi eh, cercle bu ndaw rek eh, ñoo teewee woon li ni mel di ay parent wam jege ñaaleem ak rek eh, yenn collègue mu doon liggéeyandoor ca ACT autopsie bi nag si génn àdduna Hiba Thiam bi la mu révélé rek moo di dose bu ëpp bi mu jël si drogue bi moo sabab rek génnub àddunaam loolee tax rek ba ñu si teg loxo jamono ji juróom ñetti doomu aadama nga xam ne sax ñu si ëpp rek fils à papa yi la si bile xibaar lay desendeek yéen ak rek policier Euh, escorté woon jajaatal ak Hiba Thiam moom nag policier boobu mi ngi nekk en service ca commissariat central bu Dakar dam Amar tubaab ba muy bëggantal di Aliya Louty Ba Amadou Niane Djibril Ndiogou Bassel ñu koy wax neex ak kii di Fatima Rigal ñu koy wax Poupette daal dinañ leen di déféré démb ci kanamu procureur bu weesoo nag Amadou Niane mu ñu visé ngir recel de malfaiteur ñu des yëpp rek ci groupe boobee eh, rek ñu ngi leen di toppee association de malfaiteurs usage de drogue non assistance à personne en danger ak tamit rek violation de la loi sur le couvre-feu gannaaw nag retour de parquet bi tey jii la ñuy janook ñoom ñu ñëpp procureur de la république en même temps ak policier bu ñu rek arrêté tamit si bu ñuy amal enquête bi bu ñu sukkandikoo nag si libération policier boobu rek mi ngi en service ca commissariat central bu Dakar boobu nag ak rek motoom la la rek escorté woon kii di jajaataal ak Hiba Thiam ba almadi loolee sax moo tax ñu contourner couvre-feu bi ba noppi rek dem foofee ca Garden Park boobe ñu doon rek eh, amale soirée privée ba nga xam ne ñu ngi fa yegg ci ay booru 22h ci ba ko gendarme yi interpellé nag moom moomee jajaataal di koy laaj rek ana naka la def ba mën a circuler ci couvre-feu bi sans autorisation moom ak Hiba ci eh, noonu rek la Khadija Dia dal di yoolee boobule policier euh, bu leen escorté woon dal di rek joxe numéro téléphone am laata ñu koy interpellé moom it euh, policier boobe Euh, ba tey rek si mbirum daam amaar ak euh, appartement boobee mu la tubaab ba muy bëggantal di euh, aliya nga xam ne rek fa la lépp xewee ñenn si suñu naataango yi nag jot nañoo wax ak kenn si ay jigéen ñaale doomu Youssou nduur bii di ndey soxna Ndour mi nga xam ne nii rek mooy soxna kii di daam amaar mu yoon teg loxo jamono ji si affaire ub seen soirée privée boobee ñu doon consommer rek lii di drogue ba kii di ki ba caam ñàkk si rek bakkanam gannaaw ba mu si rek jëlee dose bu ëpp mu nag nga xamante ne ni def na bruit gannaaw ba ña ko sekk di ay doom rek borom daraja mm, soxna bu daam Amar boobee nag di ndey soxna Ndour euh, doomu Youssou Ndour la ak soxnaam sa woon di Mami Camara bu ñu sukkandikoo ci entourage ndey soxna Mboup ak lépp rek lu ñuy toppee daam Amar euh, soxnaam mi ngi wéyandi di ko soutenir euh, donte sax ba mbir mi amee ak wàllum drogue bu ci am daal dina doon sax wax ci invité infidélité wu kii di doomu Ahmed Amar bile waaye nag euh, gannaaw ba mu nekkee soxna suñu yar si fidélité euh, si lu ñeel sacrifié wu si moment bu métti si muñ face aux épreuves familiales euh, ndey soxna nduur daal nay rek boole la ko neex ak la ko nakkari muñ bile méttit ñëw rek taxawu borom këram moom moomee sax ndey soxna nduur mooy togg rek bépp ñam bu dam Amar di jëfandikoo fañu ko tee noonu ba noppi rek di ko yóbbul boppam borom këram boobee moom moom mi ngi rek si pétition yi taxaw rek kii di borom këram googee di daam Amar mu doon nag luy firndeel ni jigéen bu jàmbaar la waaye itam jigéen bu mérite soutien ak i ay encouragement aywa ñu àddu jëmali si leneen mu jëloon dose bu ëpp si drogue bi si euh, ba ñu doon amal rek ab soirée privée si ab appartement euh, ca almadi bu daam Amar luweeloon rek Aliya di tubaab ba muy bëgganteel euh, moom moomee nag Xabi Caam sax ñàkk si bakkanam daal dinañ koy rek denc si sutura ni ki démb si mercredi bi juróom-ñetti fan si weeru avril ca Yoff ba ñu jullee rek tusbaar ba noppi bu ñu sukkandikoo nag ba tey si. ci source bi eh, cercle bu ndaw rek eh, ñoo teewee woon li ni mel di ay parent wam jege ñaaleem ak rek eh, yenn collègue mu doon liggéeyandoor ca ACT autopsie bi nag si génnum àdduna Hiba Thiam bi la mu révélé rek moo di dose bu ëpp bi mu jël si drogue bi moo sabab rek génn ba àddunaam loolee tax rek ba ñu si teg loxo jamono ji juróom ñetti doomu aadama nga xam ne sax ñu si ëpp rek fils à papa yi la si bile xibaar lay desendeek yéen ak rek policier ba escorté woon jajaatal ak xibaar Thiam moom nag policier boobu mi ngi nekk en service ca commissariat central bu Dakar dam Amar tubaab ba muy bëggantal di Aliya Louti Ba Amadou Niane Djibril Ndiogu Basel ñu koy wax neex ak kii di Fatima Rigal ñu koy wax Poupette daal dinañ leen di déféré démb si kanamu procureur bu weesoo nag Amadou Niane mu ñu visé ngir recel de malfaiteur ñu des yëpp rek ci groupe boobee eh, rek ñu ngi leen di toppee association de malfaiteurs usage de drogue non assistance à personne en danger ak tamit rek violation de la loi sur le couvre-feu gannaaw nag retour de parquet bi tey ji la ñuy janoo ko ñoom ñoo ñëpp procureur de la république en même temps ak policier bu ñu rek arrêté tamit ci bu ñuy amal enquête bi bu ñu sukkandikoo nag ci libération policier boobu rek mi ngi service ca commissariat central bu Dakar policier boobu nag ak rek motom la la rek escorté woon kii di Jaja ak Hiba Thiam ba Almadi loolee sax moo tax ñu contourner couvre-feu bi ba noppi rek dem foofe ca Garden Park boobee ñu doon rek eh, amale soirée privée ba nga xam ne ñu ngi fa yegg si ay booru 22h si ba ko gendarme yi interpellé nag moom moomee Jaja Tall di koy laaj rek ana naka la def ba mën circuler si couvre-feu sans mobilisation moom ak Hiba Thiam euh, noonu rek la jaja dal di yoo yoolee boobule policier euh, bu leen escorté woon dal di rek joxe numéro téléphone am laata ñu koy interpellé moom it euh, policier boobee. Euh, ba tey rek si mbirum daam ama rek euh, euh, appartement boobee mu la tubaab ba muy bëggantal di aliya nga xam ne rek fa la lépp xewee ñenn si suñu naataango yi nag jot nañoo wax ak kenn si ay jigéen ñaale doomu Youssou nduur bii di ndey soxna Ndour mi nga xam ne nii rek mooy soxna kii di daam amaar mu yoon teg loxo jamono ji si affaire seen soirée privée boobee ñu doon consommer rek lii di drogue ba kii di ki ba caam ñàkk si rek bakkanam gannaaw ba mu doon nag mbir ma nga xamante ne ni def na bruit gannaaw ba ñàkko sekk di ay doom rek borom daraja mm, soxna bu daam Amar boobee nag di ndey soxna nduur euh, doomu Youssou nduur la ak soxnaam sa woon di Mami Camara bu ñu sukkandikoo ci entourage ndey soxna Mbuup ak lépp rek lu ñuy toppee daam Amar euh, soxnaam moom mi ngi wéyandi di ko soutenir euh, donte sax ba mbir mi amee ak wàllum drogue bu ci am daal dina ñuy doon sax wax ci infidélité wu kii di doomu Ahmed Amar bile waaye nag euh, gannaaw ba mu nekkee soxna suñu yar si fidélité euh, si lu ñeel sacrifié wu si moment bu métti si muñ face aux épreuves familiales euh, ndey soxna Ndour daal dinay rek boole la ko neex ak la ko nakkari muñ bile méttit ñëw rek taxawu borom këram moom moomee sax ndey soxna Ndour mooy togg rek bépp ñam bu Dame Amar di jëfandikoo fañu ko tee ba noppi rek di ko yóbbul boppam borom këram boobee moom daal mi ngi rek si pétition yi taxaw rek kii di borom këram googee di daam Amar mu doon nag luy firndeel ni jigéen bu jàmbaar la waaye itam jigéen bu mérité soutien ak i ay encouragement